Soumbédioune nag dafa am problème problème bi mu am mooy ci Covid 19 bi bi ñu commencé ba léegi ça fait quatre mois ñun dundewuñu lu dul tourisme gisuñu ministre du tourisme gisuñu ministre de l'artisanat li tax ñu wax tey jii ñu toog dañoo toog déglu ba tey dégguñu dara ñu bëgg a wax suñu bopp laaj borom réew mi ndax ñun waa artisanat ci borom ci réew mi la ñu bokk loolu lañ bëgg a laaj premièrement borom réew mi. parce que ñun dundewuñu lu dul tourisme kenn ñëwatu fi kenn ñëwatu fi le village da nga fiy ñëw yow bu fekkee ne ñun ñu xam ne vraiment dañoo am tuuti quota ñu tu dañu dee président parfois nit dana ñëw wax la loo xam ne yow sa bopp da nga dugg làqu danga nga gis nit koo xam ne géejawaay la dëkk wala pikin wala Thiès dana fi fanaan une semaine su ngeen weddee mën ngeen ñëw ma ànd ak man fii laa dëkk tout près di leen seetaan di waxtaan ak ñoom muy métti métti yu bari te kenn ci ñun kenn ci ñu ñuy lif ci autorité yi waxul ci ñun waxul ci ñun ñu bëgg nag président de la république revenir xool artisan yi te nag lenn dinaa koy wax souvent maa ngi koy wax le pays là ne peut marché marcher mënul dem sans l'artisanat ku fi jóg di dem boo xëyee artisan ngay àndal mbubb mi nga sol artisan ko ñaw dégg naa toujours ñu noon diisoo nappkat beeg baykat beeg sàmmkat bi mais ana artisan bi ana artisan bi ñun ñoo ñun ñoo ñooñu ñu ñu fiy wax ñëpp def leen wutal leen ministère personnel ñooñu ñun ñoo leen man parce que ñoo leen di soloon bu bu solal leen dàll ñooñu la ñu bëgg président revenir xool bu baax xool bu baax lan la artisanat di jare ñun suñu voisins yi ñu dendal vraiment la Maroc qui vit avec l' artisanat ñoo leen dàq liggéey dañoo amul ku ñu jàppale bu ñu amoon ku ñu jàppale ñun muy dàll muy mbubb muy lu mënti doon bu ñu la wanoon dàll yi ñu liggéey fii wan la xale bi ko liggéey nga weddi ko. bëgg nañ tamit ministère bi ministère bii du lu ñuy boot kenn attanu ko kenn attanu ko ku ne la ministre de l'artisanat attana ministre et de ça ne marche pas. ministère plein la ñu bëgg moo ñuy dimbali parce que day veillé ci li ñu am day veillé ci li ñuy wax. mais suñu amee ministère boo xam ne daanaam ministre et de l' artisanat kenn xooluñu kenn xooluñu lul mooy suñu jooytu mooy suñu problème bëgg nañ daal président de la république fii mille sept cent cinquante personnes fii xëy ñooñu vraiment fu ñuy xëy nit mën na wax ak ñoom nit war na wax ak ñoom te kenn ku nekk am na ay doom ay jarbaat lu nekk am nañ ko te ñun lu président def ñoo ngi ci ànd di ci ànd ak moom bu ñu toogee ba mënuñu gis suñu bopp ci Covid bi nag war nañu toog wax ñëpp dégg ñu bu fi jógee nañu utal ministre plein parce que aussi xam nga ministère boo xam ne tey jii yow yaa ngi gàdd fa euh, kii euh, nu mu tudd comment dirais-je yaa ngi gàdd euh, emploi formation professionnelle bëgg a baat artisanat te toujours artisanat boo xoolee rek seen ministère ñoom ginnaaw lay féete mooy manque de considération totale la ñu am donc ñu ngi demande président Macky Sall mu dimbali ñu jox ñu ministre plein ñu xool ba xam qu'est-ce que ça donne avec les directeurs généraux yoo xam ni vraiment yoo xam ni dañuy sentir artisanat yëg ko seen xol ñi ngi ñaan plan PEJA bii nga xam ni annoncé nañ ko te quatre corps de métier lañ ci tànn muy mécanicien menuisier euh, frigorifique ak tamit couturière ba léegi gisaguñ suñu wàll loolu dafa war a tas parce que artisan d'art xool nañ ba si yàgg kenn considéré ko mooy secteur bi nga xam ni moo mën a wane image Sénégal parce que mënoo fi ñëw mécanicien di la wan image Sénégal mënoo fi ñëw menuisier di la ko wan mënoo fi ñëw leneen di la ko wan artisan daar bu yett sculpté defar defar sac defar lépp tubaab bu jógee fee moom rek moo la mën a wan li Sénégal à part lui keneen mënu la wan donc nañ ñu respecté jox ñu suñu cër yeneen dëkk yi nekk en Afrique ñu ngi ñuy raw Maroc mi ngi ñuy raw Mali mi ngi ñuy raw yeneen dëkk yi ñu ngi ñuy raw parce que dañuy fonk artisanat boo xoolee li ci nekk ci biir rek li ñu ci def ñun defuñu ko ci parce que respecté wuñu considéré ñu commande yi ñu fiy def yëpp mënoon na jaar ci artisan yi mënoon na jaar ci ñun tey boo demee ministère fële boo xoolee seen chaise yi seen lépp tablier yëpp c'est commandé en Chine amul dara lu ci artisanat Sénégal defar dafa ruslu boo demee ba ministère da ngay rus ndax boo xoolee bi ministère beeg table yeeg bureau yeeg yëpp amul dara lu ci artisan sénégalais defar lépp dañu ko jëndi fële à l'extérieur kon nañu jox suñu considération nous demandons ça au monsieur le président de la république jox ñu considération plein jox ñu ministre plein loolu lañ lay ñaan wasalaam